système bi fi nekkoon laa lay wax surtout nag libéraux yi bi ñëwaatee dañoo xoola li ñu def ak sëriñ si. yow mi seetaan Wilane TV aboneel gaaw te nga activé cloche notification bi mooy tax ngeen mën di jot sunuy vidéo en temps réel. Wilane TV la voix des sages des sages. dafa bëgg ñëw rek ci aspect boo xam ne itam dina am solo lool ci kuy laaj doomu soxna nga laaj ko ko muy fi réew mi toll ñu ngi jóge ci gouvernement boo xam ne def nañ fi 12 ans wax dëgg yàlla am lu ñu jot a réaliser ci dëkk bi Euh, loo xam ne kenn ñemewul taxaw ne defuñu fi dara tabax nañ ay tali tabax nañ ay institution defar nañ yu bare bare tabax nañ ay kër si këru diin yi ba xalif généraux yëpp delloo leen jukkal léegi nag gouvernement bii nga xam ne moom mooy doog a ñëw bi muy laata ñëw am na ñu doon wax ne ñii bu ñu yéegee dañuy xeex diine ñii bu ñu yéegee dañuy doyee dal tariix yi waaye bu ñu yéegee it premier pas bi ñu def dal na xel ndax euh, bi may ñëwee ci yoon man maa ngi koy wax président Diomaye di li mu diggee woon bokk na ci def na ko mooy sécurité bi doy na sëkk ci yoon bi ndax boo jubee Thiès ba ba ngay dugg Tivaouane ñaari euh, mètres yoo soqi rek gis ay gendarme ñu taxaw te dafa waxoon ne euh, ci wàllum sécurité danañ ci jël motuwaay bu am solo ci kanamu xalifa bi loolu moom gis nañ ne wax dëgg yàlla du ñu du ñun ñoo war a wax ne respecté nañ ko waaye li ñu suñu bët may respecté nañ ko waaw donc nag lan ngay xaar ci li nga xam ne mooy gouvernement bi digganteem ak xadara bi waaye digganteem ak këru diine yi gis nga dafa am libéraux yi su waxee libéraux yi nag de Macky de Abdoulaye Wade am Macky Sall ñun nag peut être barke dem leen juddu waaye am na lu ñu fa jot a fekk année fin ak année quatre-vingt-dix yi te dañuy jàng di gëstoo ndax ñu ay baaxis leen yàlla ñu nattoo gëstu moo ne man la moo tax sa gars yi man la man du ma sëriñ man je suis un architecte social <laughs> je suis un social wala un entrepreneur social parce que man évolution xel aadama évolution mujtama Sénégal yi moom moo ma gën a ñor ka yi bëri li ñuy wax parce que si évolution si nga xam yow nooy nattee sa njaboot ak nooy tëralee sa njaboot gis nga libéraux yi de mil à 2024 dafa am lu ñu yàq si réew mi si diggante collaboration sëriñ ak taalibe bi ak sëriñ ak état jamono boobu nag boo ko wax nit ñi ko comprendre Senghor dafa am lu mu waxoon li ñu wax ni moo ko wax boobu ñu xale na xamuñu tax dëgg la ne dinaa fexe bañ nekk des mauvais musulmans man ma la ay seen passe mais mais man dama jàpp ni Macky Sall malgré tout ce qu'il a fait na comme infrastructure dafa li mission moy na fexe ba serigne ci kenn du leen nawate bi nek de mauvais marabu prat yi won yeb lol la parce que bam fuelo taxaw ne sont des citoyens ordinaires suñ kilifa gu bax gi parce que mbé si Mansour nga xamné mom lépp lu rafet la ci gis rafetal na wax ja waaye ñun yek nee ni ñun en tant que chercheur en tant que psychologue xam ne lisaanu xaalam moo doon wax ndax lisaanu xaal afsaxu min lisanil maqal lam denc la wax il l'a prouvé te li xam li ñu comprendre nitu tubaab euh, le messianisme le chatanisme bu yak yàq diine du ñëw yàq sa pas-pas dañuy corrompre li pas-pas bi li ñu koy corrompre mooy lépp luy yàq pas-pas bi xam ne boo ko ga dem moom leen def dugal sa alal ju leewul folkloriser folkloriser mbir mi waaw fekk fekkale nit ñi bërëb bi nekkoon bërëb bu jaamu yàlla am sacralité ñu fexe ba mu nekk xoolal bërëb de d'

dañuy bëri ay mushabahat ay similitude moo tax bu ñu defee erreur rek bu ñu defee nànk rek daal tubaab bi dañuy dal France moo ñu gën a baax ay loi sociale moo ñu gën a dox économiquement mais penc ana penc ci France ndax amul kilifa ndax dañoo cax église bi si loxoom si penc mi te libéraux yi fu leen bëgg a jëm ñun dem ba til taalibe yi xeeb kilifa yi wan ne alal ji xoolal ñoo la gën a bëgg alal ñoo la gën a bëgg jongama ñoo la gën a bëgg tool ñoo la gën a bëgg luxe ñoo la gën a bëgg laa su ko defee ba taalibe doon ne mais attends man sama problème sociaux yi may xeex sëñ bi intervenir aussi te mi ngi dund ak njabotam commencé frustré wu parce que lo leen bëggoon mooy dagg lien bi ombilical ak su boobaa réew bi dootu amati kilifa su boobaa kilifa yi loi yi ñooy ñooy ñu yilif comme la xew France France moo ñu raw économiquement moo ñu ëpp doole lépp faju sax fa nga koy defee jéem pour pour yaakaar mais ñooñu gën a bon penc chaque jour nga dégg fi danger homosexualité lesbianisme léegi sax dinaa na am am na mi solo gami sologami sologami nit ku nek su ko neex nga takk sa ko waral penc mu amul kilifteef amul kilifteefu diine yooyu nag libéraux yi fa leen bëggoon yóbbu alhamdulilahi rabbil alamin kan liggéey si infrastructure yi mais nyata, naa dara lan ñaata lan la ñuy daal si contribuable sénégalais peut-être ku tok fe këram jango économie gëstu ko ko comprendre tabax ngay gis rek ak leneen te seen Cheikh daan wax ni banaw lil wara xablal maqasid alma aydu kulliha bi nuurin tushakkalu nee na tabaxal conscience doomu aadama bala ngaa tabax kër yi. ñii boo leen doon digal ci ci seen diggante yi. falaa jëm falaa jëm dafa damay def jeunesse benn leer ba pare bañ li fi nekk ba pare ndax gëstukat moom loolu lay def day indi état des lieux ba pare soog a teg teg li muy teg. xam ba ba mar bu Cheikh wax loolu neen neen tabax conscience yi tabax xel yi tabax ruux yi si leeru Seydina Mahamad bala ñu tabax jumaa yeeg jàkka yi parce que al madaris qabla al masajid

surtout nak libéraux yi bi ñëwaatee dañoo xoolal li ñu def ak sëriñ si bo bu bu yàggu rek ñun maam Cheikh maam Cheikh Saliou Mbacke da daan bay ñaata hectare maam Abdou Aziz Pape Pape euh, euh, sëriñ Mansour xalife bi Abdou Aziz Al Amin buleel seen seen cheikh mag ñi Sénégal yi dañu daan bay nekk de gros producteurs état di leen appuyer le régime de Diouf mais régime ba Wade dañu lu ñu def dañoo fexe ba kilifa yi bayeetuñu liñ daan bayee nga utalee ay ay ay ay ay nitu àddina ñu leen koy jox utul ay ministre wala ay DG yo xamni ne ñu affilié su ñoom gis nga politique bu salté boobu su ko défé kilifa gi day ba bàyyi tool yi parce que bo bàyyee tool am 100000 francs nga am talibé DG bi la jox 1 million noy def da ngay tok bu yàggee da ngay gasax sa dom bu juddoo ci lolu il sera victime est comprendre ma waxee moo man parfois damay comprendre nit ñi duñ comprendre mais yenn kilifa yoo xam ils sont victimes des systèmes moy système mo fexé ba def ne ay citoyen alimentaire fexe ne leen daan bay bay jaratoo bay parce que am nga benn DG bu la koy jox président mu la koy jox nit àddi mu la koy jox ñu ngi tabax kër yaa ngi tabax lépp looy defee te bay parce que boo bay du am rendement te alors que mbay ma si la njëriñ bi nekk su ko defee taali bi bu jógee Saalum indi gamb gerteem ak 100 francs yi bay tollam pour gis la du am accès yow le DG il vient am porte dérobée ndax millions yi lay jox si nga mën a jox taalibe yi si kër gi si nga mën a dundalee daara ji gis nga politique bu salté boobu moo tax ñu dem nag ba nekk ay victime su boobaa même kii waxtaan ci kër gi ci daayira bi wala xam-xam bi waxtul xam-xam xam lu mu xam mokkal xasida yi tari ko wax ay xuraafaat wax lu rëy pour nit ñi yéemu jox ko lu mu dundee parce que daloo état dafa waroon fekk sëriñ bi fa mu nekk mu def ko un grand producteur jàppale ko utal ko ay techniciens ñu jàppale ko mu liggéey contribuer si réew mi bari am lu mu dundee leen njabootam mais état dagg ko. def na ay citoyen alimentaire moo jur tey nag li aw mooy saw réew bi am kon nag ñu ñëw suñuy bees yi fi nekk benn point laa si souligné bala maa wax ak ñoom seen xalaat mooy ay nit ñu am tawxiid leen li ñu wane wax naa ko benn nit ñu am lu ñu waxtaan sama benn waajur ñu waxtaan bi affaire yi soree mënuma salafis wax ba pare ma ne ko waa salaf moom ñu ñëpp ay salaf leen képp kuy jéem a xencu Seydina Muhammad salaf saalax nga bokk waa léegi ab salaf ak góor jigéen ak franc-maçon bu la gën a munuma saay saay bi sa wax ji réena de ma ne ko ah déedéet ku taxaw ne la man diina laay xenc lépp lu may def jàngale Seydina Muhammad laa koy xoolee kii ne la man tubaab bi école Jules Ferry laay jël te ko comme argument Charlie Hebdo ma gënal Seydina Muhammad keneen keneen ma gënal na Muhammad am ay ministres yi dem fële si eh, doomu ju judaïsme ba defa def seen seen lamentation yi kii ne nekk naa formation génn naa si kii ne man sàccuma setal naa te fa mu fekk maa ngi si jàkka ji bañ na ko ba suñu parti sax dañuy askane la as parti diine nga ni kooku gënalu la ndax dafay xeex li fi ma ngi liggéey mais bu fekkee li fi ma ngi liggéey du wiraase Seydina Mohamed neex naa xeex mais bu fekkee wiraase Seydina Mohamed ko ko waroo ragal ko ko xeex te ñun de ñun d'abord gi gëm ne ni wiraase Seydina Mohamed la wiraase Seydina Hadji Malick la wiraase Cheikh na Tidiane la wiraase Cheikh Omar Fouti wiraase Ahmad Bamba la wiraase Maba Diakhou Ba la wiraase almaam bi Abou Khadre Kane la kon kenn mënu ko xeex

Nous, nit sommes buñ ci àdduwul suñu chance les xalaaj buñ ko joxé bu demee 10 ans problèmes Nous problème day melni comme code de la famille ba da wax mam mam mam parce que nous duñu dañuy investir créer ay fikriya taxaw xalaat ñun nan la bëgge des réew Yo mi Tan wilan TV abonnez-vous te nga activer notification bi mooy tax ngeen mën di jot vidéo en temps réel Wilan TV la voix des sages des sages